ndewoy ndewoy ndewoy seymane ndewoy alay katim ka mangala yaara day mu ñu bërul yàgg ndax dama bëgg seen santé ñu continuer bëre lekkaat tuuti xaalis defaruwaat parce que ñu ngi ci fin ñu ngi ci fin de carrière kay agam may ko sax kay agam yóbbu ko fin de carrière may succès am yóbbu na ko ba mu toll foo xamante ne alors vraiment xam naa lii des foofu tabari suñu doom ju baax jooju ñu joxe papaam ba léegi muy xale bu baax tubarkalla macha allah des fois ñun bu ñu wax ci moom dañu yakal ñu ko faral te faral ñu ko tok la ci auto gri mu wax ni mbé Moussa Gueye dafa faral man may mag Moussa Gueye mu ne Moussa Gueye dafa faral dafa faral Balla gay ñu wax ci mom bu ko xol sax ciune mu nekk mbeur mu ne ko déedéet fiis du lolu day wax rek ni waji mel mais faral ko ay soo temps yi bëriwul la sax bëriwul sax ak ak ak ak Balla fekk Balla gay mom ngi na dañu jox giri bu la mu sëq ci goño gi daan ko jël bu rëy yàlla deful ñu ñuy bëri wuñu bëri wuñu ba àddina bu ñu bëree donc lamba mel noonu parce que ñoom Gris Bordeaux Moussa Gueye day fréquenté Aziz Ndiaye ñu yàgg nag daloon ndax Aziz Ndiaye dafa nekkoon kër ga bokkoon ci ñu yor ci mukaayu Moussa Gueye ñu koy yónni muy dem dem ci ay sëriñ di ñëw di ci lu bëree bëri Aziz Ndiaye ba yàlla mu dem euh, Géejawaay nekk ca ànd ak di liggéey ànd ak Balla Gaye ànd ak moom di ko jàppale mu jàpp ànd ak moom koy sete dese di ba eh, parce que xam na ko yàgg ca Fass. mais moo tax écart bi am ci diggante Tapha Gueye. non non loolu warul nekk parce que Gris euh, moom lay seet Aziz Ndiaye. ah xaar dafay ko seeti. da koy seeti te te ko koy seeti kay ngeen seq ay tànn ak waxtaan ragaloo ko. kon war a ragal Moussa Gueye mi nga xam te ne dafa nekk xeetu kooku <laughs> di ko seeti te nag Moussa Gueye dëgg-dëgg na du def luy dal du def luy dal du def luy dal mukk ci àddina du def luy mukk ci àddina luy daan Gris Bordeaux ko def mukk ci do ko du ko def ak ah, bi mu dem ko nag combat mujj bi dafa dafa dafa wax jabaram teñal sumul firekul bu bu ma demee bu Balla Gaye daane Gris do teñal doo fa ñibbi du ma ñibbaat ci kër gi loolu la ko wax kooku ku koy def do toog nga ne da ngay da ngay xeex nit lamb nag moo mel nii su ko mën a Gris Bordeaux ndax problème de confiance la problème de pour mu nekk à l'aise lu koy mettre à l'aise rek loolu la def kon ñu ngi ko ci encouragé di ko ci ñaanal yàlla et li mu ci séntu yàlla may ko ci may ko ci ndam. waaw tàggatoo ndax moom li mu def ni ëllëg mën nañu njort ni kat mën na dem créer écurie parce que gis nañ mu créer mu ànd ak euh, Serigne non mu ànd ak ki nga xam ne mooy euh, Gris Lagros Pape Ndoye. waaw loolu mën na nekk loolu sax laa bëgg mu nekk man. Hmm, da nga bëgg mu créer écurie moom Gris Bordeaux. loolu loolu laa loolu moom boo boo ko déggee nii su déggee lii dina xam ne man euh, yàgg wax bi muy hmm. bëri Eumeu Sène. seen kaw mujj ni ma ñu fekk mu su nangu sumeeku mu ñëwaat fekk nangu sumeeku mu toog nangul antale mu fekk fa mu toog mu ne ko yow qu'est-ce qui se passe pourquoi doo sumeeku da nga war a bëree un ba aussi important non non gars yi nekk fi nangam sangam mu ne ko non fii Fass la ñi fi nekk ñoo fera nekk bu fekkee wóolawoo leen nit ki bu wóolawul ñu mu àndal day dem créer écurie nga dem créer sa am nga droit créer sa nga dem bëri ji pour nga mën nekk à loolu moy yoon mais do nek ci ay biir nit ngay ànd ak ngay sentu di wol kenn ki da dafay xol ak ki da may nanga sangam loolu mbër du ko def mbër nga am fit gëm borom bi bu la soye safar sax nga jëm gàppale saafara si bax ba la ngay ko mel fa la nga soti safara ta xamul fu mu jógee mooduloo ak ñeneen mental la mbër mental la mbéy ngeen ko so safara du xam fu mu joge sax ay gaay joge feren waaw waaye bu mu fee carrière bu nekk fee carrière la commencé ragal sëriñ foog mënu mu koy def rek fin de la waaye boo demee nekk ci si jeunesse doo xalaat loolu waaye boo demee parce que ay jeex si nga yaakaar ne nga dem ba yaakaar ne yow sëñ mooy tax nga daan ngay commencé gëm ay sëriñ daa kii daf may laal ak kii daf may def nekk xoolal leen ma kii kooku boo fin de carrière la ku wóolootul sa bopp lay doon moo doxale noonu koo def rek affaire bi jeex na li des bëreetul da ngay da négocier waaye kuy bëri am sa doole soo la ngay gën a wóolu en général. kon yow bu nekkee keneen ak Iram du vraiment du ma bett te sax mu def naa ne moom mooy li gën. waaw mooy li gën mooy hmm. mooy li bu ci jógee mu keneen ak Iram ndax moo naa nekk yàgg na hmm. waaye yàlla dafa dem sottiwul hmm. kon fii maanaam man nekk comme bëri na ba bëram jeex mu créé écurie am ñu ay gos yu ma encadré ànd ak ñoom loolu yàgg na am face te du fi jeex day am dañ koy àndoon moom nangu ko te di ko ñaanal yàlla moom may ko ca ndam loolu mooy def mm. loolu lay def ñun waaw te con te conséquence u yenn euh, kii la euh, attitude yi ak comportement wala lañu ko xolaat boo nekkee yor yore dara gis nga yore ñu ak ay athlète ay juróom gaañonoo ci ci at yu jegante wala feer feer boo xam ne da yàq seen làmb surtout ki nga fi ñu nekk te xam ne médecin la woon mm. te xam bu baax ne nit ki am nit ki amna lo xamni waral bu toll neneni ci normalement na nit du du du du bam nit du fas nit du du nak nak moy pour 130 kg 140 kg nit lolou du lolou du pas lolou du pas nit waaw les grands champions lourds ci judo té té dirinder defu ñu lolou ci pas yoyu ay 120 130 kg de muscle lay nek ku ci nekul lolou do dem loolu ñu xool mbir yi ndax suñu doom lañu dañ la war a protéger. waaw. <laughs> bëgg naa ci yow. merci maa la gën a bëgg. waaw Sénégal. waaw lu Sénégal macha allah tubarkàlla parce que gis naa leen bu baax a baax ci réseaux sociaux yëpp da nga koy xool bien que mag laa ñuy wax ci lamb te làmb dafa ma intéressé ñaan yàlla yàlla yokk leen parce que vraiment bokk nañu aussi yéen bokk ngeen ñu jëmal lamb kanam. fa tubarkàlla waaye nag Gaston Mbengue ja gàcce ngalaw moom mais mais mais tubarkàlla des mu def ay yoo xam ne mbir la waaye na dëgg-dëgg ne xala eh, lamb ay yoon la ko njëkkal waaye kuy bëri rek tax ñeem rek Tyson waxal grand bi merci waaye ah yaa ngi yëkki nii ak Moustapha Guèye ñooñu ak i mbàkk suñu doom yi nekk ci lamb ñoom man ñoom kii ni nii xale yi tëgg naa seen papa tëgg seen i nijaay tëgg leen ñoom waaw ah, dafa bëgg lamb rek ndeysaan passion la lamb passion la loolu la passion la lu ci perte kenn xamul mu toll man xam naa loolu ko jege ma ko mosuma dem këram mais dama évaluer xayma xamna son la ci lam perte na ci lu bari bari wa deug deug la xalla mbeure ko upp ci lam li am ci lam ah, donc ko ko war a dellu njukkal ndeysaan yenn saa nag mu def yoo du ba ci an la waye ñu kii ga rek ñu baale lo ñu baale lo ñu baale lo limu ci làmb rek ma sha allah assalamu alaykum wa rahmatullahi daal yaa ya yàlla jàmm yi ndewooy ndewooy ndewooy say maane ndewooy Vous êtes jeune bachelier, étudiant ou professionnel. Vous êtes créatif, ingénieux et passionné par les domaines qui gouvernent le monde de la science et de la technologie. Profitez de l'offre de formation dans les filières telles que réseau et télécommunications, statistiques et informatique décisionnelle, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et des transports. Cela vous est offert par Ziguinchor Institut Polytechnique, ZIP. Les inscriptions sont en cours et se poursuivent. Il est encore temps d'effectuer vos démarches pour une admission dans l'une de nos filières. Pour plus de renseignements, visitez notre site web www